xibaar réew mi di Sénégal jamono ji tàng na jër Aliou Sané bu yaanaa maar ñu xëy fekk ko ci biir journal bi nee na jafe-jafe yi nga xam ne jamono ji moo am ci réew mi ak tension bi lenn ko waral mooy lu jëm ci ñeteelu ñetteelu candidature Macky Sall moo indi jafe-jafe yi Aliou Sané bu yaanaa maar nee na Macky Sall bu daal di defee ab déclaration wax askanu Sénégal ne leen du ma def benn nu mandat maanaam coow li jeex Mamadou Sy Albert analyse politique ci biir journal bi nee na en tout cas li nga xam ne moom lañ nemmeeku ci réew mi Sénégal ñoo ngi ñaawlu bu baax a baax fitna ak bi nga xam ne nguurug Sénégal moo ngi koy teg nit ak lu jëm jëm ci àq ak yelleefu askan wi seen i liberté yi nga xam ne jamono ji dañu ko daal di salfaañe bokk na ci li nga xam ne andi na frustration bu mag ci réew mi Guy Marius Sagna ci biir journal bi nee na en moom dàqul benn yoon ab guerre civile am ci réewum Sénégal moom gi Marius Sagna moo ko wax ci biir journal bi di Rewmi Quotidien ak Vox Populi moom Guy Marius Sagna nee na guerre lu mën a am la ci réewum Sénégal ci lu jëm ci wàllum ñetteelu mandat Macky Sall moo ko fi doon indi loole moo tax ñoom gii ñoom nee nañu fukki fan ak juróom ci weeru février danañu amal ab nga xam ne teg nañu leen ci anam boo xam ne dëppawul ak yoon ba tey ci biir journal bi di réew mi quotidien ñu xëy fekk fa journaliste Pape Alé Niang moom daat nay wax ne Macky Sall jamono ji ma ngi def ay activité politique am good fine ba pare bëgg ko tere ñi nga xam ne ñooy opposition bi loolee moo jaaduwu la ndaw yi Pastef yi nga xam ne ñoo dëkk ca diwaanu Louga ñoom ti mer nañu ba mara di tale ndax nee nañu jàpp di nga xam ne moom lañ leen di jàppoo di leen di dugal ci kasu bi loolee moo tegiwul fenn ndaw yi Pastef ñoom nee nañu ñoom militant Pastef yi ak Sonko dafa mel ni duñu ay sénégalais ndaw yi Pastef yi nee nañu Ousmane Sonko maanaam mu neex ak mu naqari jamono ji ñu ëpp ci mi moom la ñu àndala yéenekaay gi di 24 heures xëy di ñu xibaar naan ñu ajjuma ji nga xam ne moom la ñu génn ca diwaanu Mbàkke bëri na ñoo xam ne dañu leen faa teg loxo waaye nag na si ñoo moo tax élèves yi démb ca mbeddi Mbàkke la ñu wàcc maanaam mer ba maara détali nga xam ne jàpp nañu leen loole la ñu daan leen ci classe yi yéenekaay gi di Libération xëy ñu xibaar naan ñu ajjuma ji nga xam ne moom la ñu génn ca diwaanu Mbàkke ñi nga xam ne jàpp benn fukk ak juróoma démb ne bokk nañu ci Azra Fall ak ku ñuy wax Xaadim Njaay ñooñee démb ñu koy tuumal nee nañu dafa yëkkati ay kàddu wax ne gendarmerie nañu ko nangam tànn daa di tàllay journal bi di bés bi xëy dañu xibaar fukk ak juróom benn yoo xam ne teg nañu leen loxo waaye nag tey ji la ñuy jàkkaarloo ak procureur yéene kaay gi libérateur bi la xëy di ñu xibaar naa ñu ñi nga xam ne ñoom la ñu teg loxo ajjuma ji ñu génn ca diwaanu Mbàkke boo muy tuwulee maanaam kaso la ñu jëm journal bi nee na li ñu leen di toppee mooy bokk ci manifestation boo xam ne dañu ko tere ba pare yàq alalu lu yéen kaay gii di Vox Populi nee na ñi nga xam ne ñooy waa Pastef ñoom nag daan nañuy bind société civile bi ci fitna yi nga xam ne moom lañ leen di teg ak seen àq ak seen yelleef yi nga xam ne dañu koy salfaañe ak ni ñu leen di boddee ci réew mi ak menace yi ñu leen di faral di def ak seen militant yi ñuy rey acharnement bi ñu teg ci kaw Ousmane Sonko ko xañ mu bokk ci présidentielle 2024 loolee bokk na ci li nga xam ne waa Pastef bind nañu ko jébbal ko société civile bi yéen kaay gi ñu xëy fekk fa Abbas Fall nee na nag Macky Sall ci boppam du ñu ko bàyyi mu yàq réew mi moom Abbas Fall ak Guy Marius Sagna ñi mu àndal nee nañu Macky dafa jàpp ne nag maanaam askan wi dañu ko ragal waaye nag na leer ne li xam ne moo fi amoon mois de mars 2021 lu ko raw fuuf mën naa am ci réew mi yéen kaay gi di Walf Fadjri xëy duñu ñu événement mars yi 2021 na station essence yoo xam jëloon engagement ngir nag ndàmp ñi nga xam ne ñooy liggéeykat yi nekk ci station essence bi ñu ko xayma un milliard deux cent la woon gouvernement bu Sénégal wax ne dinañu leen ko jox waaye nag ba léegi ni France dali xëddeen yéen a kaay gi du l'observateur xëy ci détournement bi nga xam ne moom ngeen doon dégg ay jamono ci poste finance détournement boo xam ne toll na ci benn milliard bu fekk juróom-ñaari téeméeri million nga yéen a kaay na am na lu yees quotidien ci xalim ak Assane Samb daat nay wax ci Walf Fadjri gi nga xam ne seen télé dañu koo daal waa sénéra ñoo doxalee ni mel Assane Samb nee na organe de presse bu nekk am na sañ-sañ am ligne éditoriale am te loolee kenn ku nekk dañ ko ko war a respecté la te nag Walf Fadjri munta niroo ni muy joxe ay xibaar ak RTS wala ñu mel ni RTS moom Assane Samb nee na nag ab journaliste wala organe de presse dem couvrir manifestation loolee amul faute professionnelle ma ne la loolee amul benn njuumte xam ne journaliste yi wala organe ko ci mbir nga xam ne ñooy waa sénéra bu ñu waxantee dëgg dañoo ëppal ci mbir mi yéen kaay gi nee na waawal fa ñoom jamono ji danañu porte plainte ba pare Babacar Diagne sàkku ñu mu daal di démissionné enquête yéen kaay yi nee na groupe wal fa ji na ñoo ngi waaj ay manifestation yu bare bare journal bi de Les Échos nee na Fat Diané ministre bi ñu denk wàllum famille moom jamono ji nag ma ngi jël ay chargé de mission di leen nommé ca ministère boobu mën na lay gis nga charte de mission yi dañu leen fay nommé mbir maa nga mel ne tulleeg male yéen kaay gi di sunu lamb nee na Modou Lo ak Boy Niang seen combat bi du yomb ndax na jër Modou Lo